والقلم وما يسطرون. xam mooy président commission boobu di Serigne Khadim Ndiaye imam. kon Serigne Khadim Khadim Ndiaye moom moo amee kàddu. yëkkati liggéey bi ginnaaw boo xamante ni itam Serigne am na xalaat bi. daa jël liggéey bi jébal ko rakam Serigne Fallou Seck waaye itam lépp loo xam dafa jëm ci commission scientifique yan norme la ñuy bindee ak na la xalaatee nan lañ koy tegee liggéey boobu dañ ko jébbal Serigne Xaadim Njaay mi mu jiite lépp loo xam ne moo aju si yi niy lal pour mën a bind alxuraan ba mu mel ni mu war a mel moom mooy wax ci turu kuréel bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi di leen ndokkeel ci jataayu alxuraan bi di jiital ci nuyoo bi El Sëriñ Seck mi nga xam ne ci taxawaayam bu rafet ak kóoluteem mu dénk mbooloo mi liggéey bu toll nii gunge ñu ànd ci ak ñun ci lépp ci loolu ñuy nuyu bu baax a baax sëriñ Muntaqa Mbàkke mi nga xam ne moo fi teewal xalif général de Mourid Cheikh Mouhamadul Muntaqa xam naa su ma bëggoon a nuyu soppee kilifa yi nga xam ne maa ngi jàkkaar loog ñoom dina yàgg dana jafe ñu ngi nuyu imaam sëriñ Xaadim Lo waaye nuyu nag suñu sëriñ suñu xarit suñu jëwriñ cheikh Mouhamadou Xabbaan mu cheikh Mouhamad Fadel nga xam ne moom la sëriñ Muntaqa dénk mboolem lu aju ci alquran kon jataay bi jataaye ma ñu ngi nuyu suñu sëriñ suñu wëllëre sëriñ Mouhamadul Mahfouz di ko ñaanal moom itam di nuyu délégation bi nga xam ne moo fi représenté euh, président de la république te le ministre Mbaye Ndiaye nekk ci bopp bi ak ñim àndal ñépp bala maa dugg kon ci biir tomb yi ma bëgg a wax dana am nuyoo buñ jagleel koo xam ne kuy wax ci alquran boo waxee ba jeexal te tuddloo ko mën nañ ne ku bind ba noppite te la muy sëriñ Mouhamadou Guèye mii toog di am taxawaay bu mag a mag ci alquran ci ndakaaru waaye ci Sénégal gépp mbokk yi jàngalekat ci alquran yi asilku diplomatie amidu jamiat Moustapha سعادة سفير جمهورية فلسطين الشقيقة ممثل الأزهر الشريف في الغرفة أقدم لكم تحية طيبة مباركة من عند الله ginnaaw lool ñuy nuyu itam suñu mbokk suñu xarit alxaaji Abdoulaye Dia xaadimul Qur'an nga xam ne ni ko sëñ Jili waxe léegi taxawaay bi mu am ci alquran sulli na ay ndam yu bari waaye feeñal na mboolem yaafus yu mel ni man ba ñépp tàmbaliwaat di góorgóorlu ñi ngi koy jagleel nuyoo moom itam liggéey bi ñu nekk nag tey dafa am ay mbokk yuñ ko àndal yoo xam ne mën nañ ne bu doonu bâtiment la ngay séen ca kaw ñi di ko tudd fekk na la tax bâtiment ba nekk fa mooy fondement ba muy mbokk yi suñu ginnaaw di ay borom xam-xam yoo xam ne comité scientifique bi njiit rek laa ci ciwtur waaye liggéey bi ñoom ñoo koy def ñu mën cee tudd ki jiite juri bi muy sëriñ docteur Moustapha Diop Ndar ak sëriñ Mbàkke Abdourahman sëriñ Cheikhuna Abdoul Wadoud nga xam ne ci secrétariat bi la nekk ak sëriñ Sam Mbàkke moom it taxaw na fi def fi ay liggéey yu am solo présenté nañ leen ko ci làmmiñu sëriñ Mbàkke Sourang sëriñ Mbàkke Sourang moom itam mi taxawoon fii ci comité boobu la bokk suñu rakk sëriñ Mortala Ndiaye sëriñ Hamdi Moustapha Diop sëriñ Xaadim Ñang afe ci daa di jàngalekatu alxuraan moom it sëriñ Daawuda Saaxo sëriñ Saaliwu Silla sëriñ Moustapha Gaye sëriñ Maam Balla Silla maam Cheikh Ndiaye sëriñ Alhaaji Ndiaye Cheikh Ndindi suñu rakk sëriñ Bachiru Jang ci njaareem sëriñ Alhaaji Jaxate bu dee ci jigéen ñi soxna maam xawa dem moo jiite soxna yi nga xam ne ñooy taxawu liggéey bi ndax xam ngeen ne bi ñu door ay jigéen a ngi ci woon waaye bariwuñ niñ doon ñëwee it xëy na amoon nañ complexe wala jafe-jafe bokk ci liggéey bi waaye ndekete taxawaay bi nga xam ne moom moo ci war moo xawoon a des ci lañ amee nag comité boo xam ne soxna si ko jiite mooy soxna maam awa dem ca Poroxaan soxna Mariam Jaxate ca Touba soxna Fambay Ñang ak soxna Diop ñooñu ñooy jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk ci comité scientifique bi di ay jàngalekat di boroomi xam-xam euh, Serigne Fallou Seck tudd nañ ko ba tàyyi mooy jëwriñ ji nga xam ne moom la Serigne teg ci suñ kanam euh, boole ko ak ñun euh, ci liggéey boobu mu jiite ko ànd kook Dame Touré mi nga xam ne mooy représenté trois 3 s moom itam ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñoom Mahmoudan jang euh, ba tey Serigne Mokhtar Kebe ñëw na fii def fi ay boole yu am solo Serigne Mokhtar Kebe moom Serigne Saliou bokk ci borom xam-xam yi bokk ci shuara yi bokk ci ñi man alxuraan Serigne Saliou sàll moom ngeen gis mu doon leen présenté mbokkam moomu nga xam ne am na juróom-ñett fukki at ak lu topp. bind kaamil ci ñetti weer waaye am ndam lu rëy mu teewalub kaamilam ab ab sëtam teewalub kaamilam mu ne ko sa maam bind na kaamil waaye yow bind nga sëriñ Saliou sàll moomu euh, moo leen doon euh, taqdim sëriñ Omar Silla itam ci comité bi la bokk sëriñ Saliou Silla naka noonu sëriñ Ousmane Dia moom itam ci Ranirou nga xam ne côté Fuuta bi yëpp moom moo koy coordonné Matam ak Kolda ak Sédhiou ak Ziguinchor yu mel noonu kon ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo féetewoo liggéeyu scientifique bi tëral norme yi nga xam ne ci lañuy xàmmee kii jiitu lu tax mu jiitu ki des ginnaaw lu tax mu des ginnaaw te lépp tege ci xam-xam tege ci maandu mbokk yi kon ci biir liggéey boobu yaakaar naa ne euh, am na tomb yoo xam ne tuddoon nan ko ci suñu jataay yu njëkk ak yéen musaabaqa bii nga xam ne mooy musaabaqatu rasmil quraanil karim moom nag dafa am ñetti étape maanaam alquran bind giñ koy bind wala bind giñ ko bind ak dajale giñ ko dajale dafa am ñetti étape li ñuy wax al ahdu nabawi wal ahdu al bakri wal ahdu al usmaani kon konkur bi xam ngeen ne alquran dafa bari ay abaat dafa bari ay ay dimension yu baree bari la tafsir baa ngi fi yeneen xam-xam yaa ngi ci waaye concours bi nag yaxub alquran an nassul quraan yi moo ko tax a jóg bu dee yenn ulumul quraan lu mel ni qiraat yeeg ya ca aju yépp concours bi taxu koo jóg waaye li ko tax a jóg mooy an nassul quraan yi na nas boobu nag lan moo tax yan yitte moo tax sallallahu alayhi wa sallama taxawoon ci saxaabaam yi taxawoon ci ñu mën cee tudd Seydina Abu Bakar ak Seydina Ousmane bu dee ci gën ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallama mën nañ ne lu tax dajale wutoon alquran mënu koo dajale ndax alquran ni mu doon wàccee ci moom. wenn saar dana wàccandoo waaye wenn saar dana ñëw am aaya yoo xam ne ca la bokk te ñëwagut aaya dana ñëw mu ne nañ ma ko yóbbul ci saar sàngam tegal ma ko mu sës ci nàngam ba ci tartiib suwaril quraan saar wu nekk fii la wee ci topp wee ci topp loola pareegul woon kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam lam mënoon def mooy wut comité boo xam ne commission boo xam ne lu ñëw rek ñu bind ko te lii ñëw léeg-léeg mu ñëwandoo saaru lëm wàcc lu mel ni baqara bari gu muy bari ak ñakk xereñ ak ñàkk tàmm guñ mën a tàmm mbind loola muntoon a gaaw kon ndànk-ndànk lañ ko doon bind waaye nag ñi ngi ko doon mokkal ci biir bopp yi bi nga xamee ne jamonoom jàll na sallallahu alayhi wa sallama na Abu Bakar bi mu dikkee moom moom it dafa wutaat commission yooyee nga xam ne moom lañ bindoon ndax mbind mi dafa am li ñuy wax euh, rasmu boo xam ne shaxsi yi la ak rasmu boo xam ne rasmi yi la mbind moo xam ne yonent bi moo digle ñu di ko bind ci commission am ak mbind yoo xam ne jullit yi ñooy coobareewu ku nekk di bind la ngay bind di ko dencal sa bopp na Abu Bakar bi mu ñëwee nag te xew-xew boobu ñëpp xam amoon dafa dajale mboolem ñi nga xam ne ñoo bindoon ku ne mu laaj la la nga bindoon mu wut benn commission ñu dajale ko mu nekk benn kaamil kon moom kaamil boobu mu dajale am na nag yu ci nekk ndax am na ñoo xam ne bu ñuy jàng alquran tafsir bi mën nañ koo bind ci pegg bi mën naa am mufradatul quran ñu bind ko ci pegg bi léeg-léeg ay ñaan yoo xam ne sax dañ koo am ñu ko ci pegg bi kon Seydina Aboubacar bi mu dajalee kaamil bi ba noppi dajale waat gi nga xam ne moom la Seydina Ousmane dajale na mooy dajale goo xam ne day tajliid quran min kulli ma siwaahu mooy lépp loo xam ne mu ngi ci biir ci pegg bi ci haamish bi te du alxuraan dañ koy cay dindi loolu cheikhul xadim radiallahu anhu bokkoon na ci méthode am nga xam ne aw tur sax boo ko bindee ci kaamil bi nga ko jox nee nañ daf koy dindi lu mën a doon da wut weneen këyit bindu ko ca xëy na teg ko ca waaye kaamil bi moom du nangu lenn lu dul alxuraan ñu di ko ca def du ak ñaan du benn taaliqaat kon sayidna Ousmane lu tax ñu naan al mushaf al mushaf al usmaani wala al rasmu al usmaani loolu idaafatu tashrif la idaafatu tashrif la mooy dañ ko koo terale rek naan mushaf waaye noonu la ko fekk ci abou bakar radiallahu anhu noonu la ko abou bakar fekk ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam léppi alquran tawqiifi yi la amul lu ci nit def wala lu mu ciy dindi kon ñetti étape yooyu nga xam ne bu ci nekk jaar na ci xam ngeen ne buñ ne rasmul quran musabaqatu rasmil quran rasmu ak xat ñoom ñaar bokkuñu am na farq bu mag a mag ndax boo nee xat leneen lu dul alquran mën na koo doon mën ngaa indi alquran tam te fekk na niñ ko war a rasmoo xawaayida ci wàllu dapt ak la ci aju indiwoo ko su boobaa kon mën naa nekk xat waaye du nekk rasm moo tax rasmul quran la ñuy wax ñu ne itam ar rasmul usmaani yi kon an nasul quraani moom la concours bi yittewoo moom la concours bi di toppatoo waaye itam nag jublu ci ginnaaw loolu mooy tur wi buñ ne yaatal mbindum alquran tur woowu rek yaakaar naa borom xam-xam yi coow nañ ci lu yàgg a yàgg ndax alquran a ngi fi woon néew ñi dañ koy delloo si mbindum alquran waaye dafa xat mooy ay ay gox yu néew a néew lañ koy fekk su fekkoon dañuy wax ci wàllu xam-xam ci alquran ci Sénégal ñi nga xam ne xam-xam wane na ko expérience yi ñu def wane na ko mën nañoo tasnif quraan ci ay xaaj bu fekkee ci wàllu mokkal ko bind ko te doo ko gis mën nañ ne tuuba ak ay moom lu ci aju daani ki foofu la xaw a des mooy mokkal ko tari ko bind ko te doo ko xool te mbind mi rafet waaye boo demee itam ci bu dee fuuta lu mel ni ki la ca aju lépp ci fuuta wàllug rasmu bi nga xam ne moo tax ñuy wax mu nga xam ne xawaayid dabt ak rasmu li ci aju ak nu nusuus yi ci am ak téere yiñ ci bind niñ koy mokkale ñoom ak nañ koy fonke ñun mën nanoo bind kaamil bi mu rafet def yëpp waaye xawaayidu rasmu yooyu nag moom itam ñoom ñoo ca ñoo ca man waaye seen bind boo ko xoolee it boo ko dendalee ak suñ mos daa mel ni mooma du xaw a demee neen ni naka noonu boo ñëwee ci wàllu bu dee qiraa bi ak tajwid bi bu dee tajwidul quran xëy na mën naa yaatu fii mu ne waaye man nañ ne ku mel ni Serigne Hadi Touré buñ di wax ci xam-xam nga xam ne moom moom lañ njëkk a xam ci jamono ju bees mu indi tajwidul quran dem ba ma a war a mu jël kaamil indi ñëw indi téere buy jàngale tajwid ñim fekkoon ñuy wax xayril maxlubi alayhim wala laalina mus mus defaraat ko loolu ba tey côté boobu fa la nekk waaye nag fi mu ne attention sama mbokk daara yi ci faas léegi concours alquran bi sulli na ay mbir yoo xam ne buñ wëttuwul buñ doxee tuuti am na ñoo xam ne xayril maxlubi alayhim wala na lañ doon wax waaye fi mu ne nii boo demee ci concours bi daaniki ñoo koy jël te ñetti at ñeent yu njëkk yi mënuñ ci war a bokk kon lii ngeen di def El Hadji Sëriñ ak ñi mel ni yow nañ bàyyi xel ne ruuwu alquran bi mi ngi koy dawal dawin woo xam ne li nga xam ne mbokk mi wax na ko eh, Fadilu Taal léegi ne maanaam alquran li muy daw Occident ak ñi gëmul ñi bëggul lislaam nun xeeb nan li muy daw waaye ñoom xeebuñu ko kon nag suñu daara yi nañ ci taxaw gën koo sàmm gën koo fonk te am dignité boo xam ne ñu xam ne miche wi ak ceebu keccax ñoom ñaar ñooyam jërëjëf lu ci nekk ci gimiñ gi lay neexe mbaa mu naqari fa waaye su fa jàllee duutoo ci xam dara kon nag dara bum ñu gënal suñu kaamil bi dara bum ñu jaral ñu jaay suñu ngor nañ xam ne yi ñuy gis yépp ay xob rek la wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf jërëjëf imaam Xaadim Njaay euh, mooy jiite comité scientifique bi ci kàddu yu am solo yooyu anta bi ni'mati rabbika bi majnun